moom may ñëw ci yow coach uh, Pape maa ngi lay nuyu. waaw Pape yaa ngi ndar uh, tey ji waroon nga fi teew nag mais bon uh, ñu bàyyi la rek nga profiter say vacances fële ca Saint-Louis. <laughs> lu may di jégalu ci absence bi vraiment c'est que dafa dama tardé ma voyagé guddi gi quoi. dëgg la loolu a lay nuyu bu baax Saint-Louis ñu lay nuyu bari na ah. <laughs> may jaale. ñu génn àdduna ci fan yi mm-hmm. Eh, ci accident yi di ñaan yàlla yemale ko fii ba pare may may ñaan encore une fois sénégalais yi ñu mën daje ci benn plateau pour waxtaan lan mooy solution bi moo gën ku nekk di tirer si morom parce que je suis sûr que président bi ñaanul mukk situation bi am ci Sénégal. Mhm. ñun aussi kenn ñaanu ko si bonte ñoo ci bokk xalaat ku nekk na joxe xalaatam ñu trouver une solution nu mu gën gaawee. Mhm. parce que ça fait peur si njaboot ci ñëpp may ma saw ñi gagné aussi su ko suñu mhm. participation la woon. Mhm. di souhaiter ba vœux ci sportif yu nekk Sénégal yëpp ak ñu dul sportif. mais xam nga après la coupe du monde la coupe d' mhm. dafa am benn écart bu am bi nga xam ni ci joueurs sénégalais yi comme ni ko ay dara waxee xaw ma problème mu gérance la xaw ma problème mu agent la xaw ma problème mu lan la dafa am benn écart bu am bi nga xam ni dafa retardé les joueurs sénégalais parce que il faut anticiper le haut niveau on anticipe on pense on anticipe il faut avoir des cibles aussi parce que ce profilu joueur su fekkee da nga ko yóbbu da nga ko viser pour Arsenal te niveau Metz la am aussi progression am lu la mun progresser day am problème bu demee Arsenal du football parce que booy gérer sa carrière aussi da ngay xool ni ngay yéegee escalier yi mais doo tëb rek dem dem euh, Manchester United wala Real mën nga fa bloqué wu doo football mais moi j'ai un peu peur euh, trêve hivernale bi euh, mercato hivernal bi mhm. jour di déplacé wu di dem feneen parce que temps d'adaptation bi du la may nga intégrer groupe boobu pour mën progresser mhm. c'est impossible presque mhm. demal ci histoire nga xool ñi dem yépp changer ñi ci réussir du bare parce que nit dafa am temps d'adaptation fi ngay dem mercato d'hiver sopp ma ko trop. mais temps de mais mais moo gën aussi damm banc quelque part aussi parce que soo nekkee ci équipe boo xamee ni yow yaa ngi fa deuxième troisième choix euh, géewloo euh, nga dem ci beneen équipe au moins nga nga nga football au moins commencer retrouver say sensations. parce que xam nga euh, déjà amoon compétition nga dem ci ñuy compétir même buñ la dugalee pour nga nekk seen niveau déjà day am problème wala nga nekk ki nga xam ne da nga gaaw adopté wu seen niveau ta seen vitesse de jeu xam nga damay dellu si en si monde bi. contre Angleterre, comment tu peux faire rentrer Pam Matarsa qui jouait pas, Pape Gueye qui fait des bouts de match, Bamba Dieng qui faisait des bouts de match a Marseille nga dugal leen ci anglais yi nga xam ni ñoo ngi compétir j'ai une mi-temps pour ñu gagner la ñoo ñooñu du ñu ñëw niveau bi seen mise en train sax du leen may ñu ñëw niveau bi c'est impossible noonu aussi lay deme ci jour bu nekk ci banc jour bu nekk ci banc man dama koy conseiller sama xaw ma nag après nu ngeen koy intégré waat équipe bam ba déwén buy dem muy dem dem hivernal foofu pour mën continuer. eh bien justement euh, Pape foofu damay taxaw sax si ñaari euh, jours yooyu ñu wane euh, fond d'écran te nga xam ne yéen bokk dëkk bu ngeen nekk fële muy Bamba Dieng ak Pape Pape Gueye ñoom ñaar surtout Bamba jour joue de moins en moins te Bamba dafa nekk koo xamee ni dañu ko doon xaar après. waxuma woon sax coupe du monde mais après coupe d'Afrique dañ ko doon xaar comme un élément majeur de l'équipe nationale du Sénégal et on voit qu'en temps de jeu euh, ça devient de plus en plus difficile pour lui est-ce que tey jii gënul mu dem seeti feneen. xam nga xam nga Bamba les Africains marchent au moral Bamba début d'année dafa perturber personnalité joueur parce que daf ko perturber mu wax mu bañ ko Bamba bon. c'est pas pour dire agent wam wala pour ñi ko gérer wala dara Bamba n'a pas été bien géré globalement si kiiwu carrière parce que ba pare euh, président OM dimbaliwu ko trop parce que président bi déjà moo ko bëggoon bëgg jaay pour ay ses raisons personnelles on sait pas ba pare Igor Tudor wéeru si côté président bi parce que c'est très aléatoire nga ni jour c'est très euh, kii euh, duma comprendre quoi nga ni jour bi baaxul ba pare nga koy dugal ba pare compté waat si moom c'est kii ak histoire am ni mu demee mais ba euh, am Bamba aussi dafa progressé wul même buñ koy dugal parce que du gérer bu duggee il court bokku il veut de suite régler le problème de l'OM c'est tout rationnel quoi am dafa am ki nañ koy wax léegi ay dara encore mi naan boo jour bi génn leen bu génération foot bi war na gérer boppam si biir terrain bi placement am déplacement am et tout loolu le haut niveau loolu la demandé mais si ordre dispersé booy daw même bu fekkee bëgg nga régler problème défensif ba pare bëgg ko dugal du du du du du compatible c'est impossible Bamba loolu la bëgg pour le cas de Pape Gueye Bamba aussi foofu laa koy xoolee nga gi ma ni euh, mën na forcé mi ngi dugg ay bout de match bu dugg ay bout de match mu gérer boppam juste surface bi jéem dugal moo gën muy déplacé au déplacement yu bare pour nekk en préparation et à finition mënul nekk c' est impossible il faut un bon entraîneur wala ku koy yedd wax ko ni ko nii nga war defee pour mu mën di dugal pour le cas de Pape Gueye aussi parce que Séville mi ngi ko soxla ci door mi ngi ko bëgg def léegi demi centre daf ko bëgg a jëloo comme un stoppeur parce que ne na am na profil bi il va jouer dem xelam damay jóge te Marseille dafa xaw boo fa amee stabilité doo fa gaaw bëgg jóge quoi parce que dafa nekk un une ville très cosmopolite et ville bu ville bi nga xam ni dafa neex. respire le football quoi. oui doo bëgg doo gaaw dem mais su ma moom aussi dama jóge Marseille fin de saison bi du ma ko jóge léegi. Mhm. parce que intégration boobu man moom laay tiit quoi demee beneen club pour mën jouer surtout que remplaçant la woon donc mhm. date titulaire yi fa nekk pour mën nekk sa niveau. Mhm. bon enfin on verra on va y aller les autres aussi c' est le même problème parce que man lan lay xool bu mu doon bu mu doon euh, euh, kii na ko wax Lamine Pape Lamine Conté euh, on prépare pas l'équipe l'équipe B pour intégrer l'équipe A mhm. mais kooku mooy foo ci dem ci àdduna la bonne graine bi nekk équipe B mooy jël relève bi pour dem équipe A mhm. mais buy génn nga muy dem Marseille wala muy dem ay garde de fou protéger ko pour sa bonne graine bi mën la indi dara du nekk hmm. parce que yow sa formation da ngay nekk formation bu kasara comme ni ñu waxee à Saint-Louis hmm. pour mën yàqu quoi vraiment mais loolu war nañ ci travailler te aussi am na benn problème le CHAN bi pour mu mën ci wax ah, waaw waaw euh, de trente ans est ce que nañu dem CHAN parce que CHAN bi vitrine la parce que jour pré euh, euh, kiiwam du avenir du football hmm. mais présent au football la mais du avenir au football. Ah, mais pour nga discrimination la de. <laughs> Hmm? discrimination la. loolu non non non non non non non non non. non xam naa on te comprend xam nañ ci oh, logique bi ngay oh. waxee. parce que vitrine la ñun ñun ñun promotion la ñuy def en Afrique. Hmm. on fait pas bon xëy na ay Maroc ay Égypte. am nañu kii mais au Sénégal ak ñeneen ñi promotion la ñu def pour seen joueurs yi dem dans le haut niveau pour ñu mën indil dara. parce que hmm. Sadio Mané si c'était pas le haut niveau on n'aura pas Sadio Mané qu'on a aujourd'hui et même Idrissa et les autres là parce que ils ont fréquenté le haut niveau les Messi et consorts pour ñu mën agsi si niveau bi ñu agsi aussi. parce que ñun dañuy promouvoir rek pour am leneen. Mhm. loolu laa doon wax quoi ma leen di nuyuwaat. merci bon c'est dommage que nekkuma fi tey. merci merci ce sera une une prochaine fois. Euh, euh, alors Lamine euh, je pense que même kii mi ngi ko doon wax Pape mi